mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di baaxu di déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dal ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Diop Cheikh Diop nekk coordonnateur du centre de sensibilisation et d'information sur les trocs ñu gën ko xam ci centre Jacques Chirac Cheikh Diop ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu ñu lay remercier remercier vraiment ci disponibilité bi nga manifester ak euh, engagement bi nga bi nga wone ne serait-ce que pour répondre ci suñu invitation wu tey jii Ah, maa ngi am mbégte faatu Babou du noon la. faatu Baba Fall uh-huh. vraiment di la nuyu di nuyu waa réew mi FM yëpp. Uh-huh. di wax ne am nañ mbégte aussi ñëw participer ci émission bi nga xam ne jàpp nañ ne lu am solo la. Uh-huh. Euh, di waxtaan ak askan yi ci mbir yi nga xam ne moo ñu soxal. donc encore une fois vraiment pour ñu nit euh, mbégte la sag la pour ñu ñëw participer ci émission bi. merci Euh, euh, tàmbaleeg waxtaan wi ci li nga xamante ne moom moo di centre bi di Jacques Chirac ah, tey jii eh, ñu bëggoon rek nga wax ñu eh, ca ndorteel ba eh, boobu le centre ca yan anam ngeen defee le les fonds baptismaux ba tey jii Euh, centre bi ñuy wax centre Jacques Chirac te mu nekk Thiaroye yi taxaloo ak polisu Thiaroye mhm. euh, bu ñuy fàttaliku mën nañ jàpp ne ñu ngi ko tabax ci 1995 exactement 23 février 1995 lañ ko tabax euh, ca jamono yooyu ministre intérieur ndem si yàlla Djibo Leyti Ka la woon moo ñëwoon inauguré ko ñu teg ay weer ci mois de juillet président Jacques Chirac ànd ak président Abdou Diouf ñëw ci jamono yooyu ñu inauguré ko. Mhm. d'ailleurs foofu la turu Jacques Chirac bi jógee parce que foofu la parrainage bi commencé ñu parrainé ko président Jacques Chirac loolu tax ñu gën ko ràññee ci turu sant Jacques Chirac. Mhm. ma bëgg a rek ne centre la bu nga xam ne biñ koy tabax aussi liñ ci jublu woon mooy euh, fexe ba ñetti partenaires yi nga xam ne ñoo ko seqoon muy coopération francaise parce que centre bi aussi euh, waa coopération francaise ñoo joxe koppar yi ñu ko tabaxee donc mën nañ jàpp ne France moo ko tabax. Euh, ànd ci ak état du Sénégal euh, bi nga xam ne ministère intérieur moo ko représenté woon particulièrement comité ba fa nekkoon ñu koy wax le comité interministériel de lutte contre la drogue mm-hmm. euh, ak ñun ñi nga xam ne aussi dañu représenté woon le mouvement associatif mm-hmm. parce que ñun ay responsable lañu woon yoo xam ne dañu yoroon ay kuréel Euh, ay association yoo xam ne ñu ngi woon biir yi biir Pikine de façon générale di liggéey ci wàllu santé lu am solo mm-hmm. notamment ci wàllu sida mm-hmm. donc euh, ñetti acteurs yooyu daal mën naa wax ne ñoo lëkkaloo tabax li nga xam ne mooy centre bi mm-hmm. muy état du Sénégal euh, coopération française ak le mouvement associatif yi nga xam ne ñoo nekkoon Pikine donc ci jamono yooyu lañ ko tabax def ci nag liggéey boo xam ne xëy na ci kanam danañ ci danañ ci ñëwaat Euh, euh, dañuy continuer si même lancé boobu ginnaaw bi nga waxee ci li nga xamante ne moom moo di ndoxteelu activité yu soxal lépp lu ci centre Jacques Chirac ñu bëggoon rek tey xam seen liggéey euh, lan la concrètement pour mbokk auditeurs yi ñuy déglu centre Jacques Chirac c'est vrai que dañ koy dégg tout le temps tout le ton mais tey boo ñu doon baaxee seen façon activité yi lan lay porter ça porte sur quoi Euh, li nga xam ne moo tax a jóg centre bi ci dëgg-dëgg mooy fexe ba nga xam ne lii di drogue sinébar ñu gën ko xamee ci noonu euh, fexe ba nga xam ne nit ñi nañ ci yeewu aar leen ci ba kenn du ko mën a utiliser maanaam def li tubaab di wax prévention mm-hmm. maanaam def ay yëngatu yoo xam ne dana tax nit ñi moytu li nga xam ne mooy njërum drogue boobu. Mhm. Euh, euh, bokk na ci aussi fexe ba ñi nga xam ne dañ koy jël euh, jàppale leen ba ñu mën a génn ci consommation drogue boobu. Mhm. loolu nag bëri na ay anam yu ñu koy defee. Mhm. mais liggéeyu centre bi yemul rek ci mbiru drogue. parce que li nga xam ne mooy mbiru sida dañ ciy yëngatu bu baax a baax. Mhm. li nga xam ne daal lépp loo xam ne dafay gàllankoor xale yi gàllankoor askan wi ci seen wàllu wér-gu-yaram dañ ciy liggéey bu baax a baax looloo tax suñ partenaires yi aussi ministère de la santé am ci solo trop trop. Mhm. donc euh, ci tënk daal loolu la ku wax loolu nag da nga wax ñi nga xam ne aussi seen xel dafa wàññeeku. parce que li am ba am mooy bu fekkee da ngay jël drogue mën na la yóbbu ci sa xel wàññeeku. Mhm. ñooñu aussi bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ leen di jàppale. Euh, bu fekkee ne andi nañ leen ci ñun ñu xool naka lañ leen di taxawoo ak seen i mbokk ba ñu génn ci situation nga xam ne nekk nañ ci. Mhm. donc euh, ci gàttal daal liggéey centre bi loolu la xeex wàllu drogue la xeex ko ci ñi nga xam ne. Euh, euh, dañ koy jël fexe ba ñu génn ci mais surtout fexe ba askan wi ñu yéeneen ci ci ay campagne de sensibilisation ay campagne d'information mm-hmm. surtout ndaw ñi mm-hmm. euh, parce que ñooñu ñoom la ñu gën a ciblé ba nga xam ne dinañ ci yeewu ba nga xam ne dinañ ci am ay tegtal yu leer ba nga xam ne lépp lu mënti xew ëllëg it seen xel du nekk ci jël drogue bi mm-hmm. donc loolu mooy li ëpp solo fexe ba nit ñi yeewu xam ne lii du lu baax fexe ba nga xam ne ëllëg ak lu mënti xew seen xel du dem ci utiliser ko. Mhm. donc loolu mooy liggéey bi ñu njëkk def mooy liggéey prévention mais prévention rek doyul parce que loo yeete yeete yeete aussi du ñàkk ñoo xam ne dinañ ko jël. pour ay raison yoo xam ne xëy na doo ko maîtriser mais li am solo mooy que nit bu ci nekkee ñu taxawu ko jàppale ko pour mu génn ci. Mhm. parce que loolu gis nañ ne lu mën a nekk la et am na ay résultats yu ci am aussi. Euh, euh, Cheikh Diop dañu des ci wàllu euh, drogue bi nga tàmbale mais particulièrement ci cette frange de cette de la partie de cette population maanaam ndaw ñi mu mel ni de plus en plus malgré sensibilisation yu ñu ciy def malgré sport publicitaire yi di leen wax ne lii mun na dégrader seen santé mun na sax dem ba ngeen tàkkalikoo seen sago n'empêche ndaw yi ñu ngi koy jëfandikoo te ji boo ñu boo ñu doon defal rek benn benn benn taxaw seetlu ci drogue bi ak euh, xale yi lan nga ñu ci mën a wax ban la ñuy gën a di farataal di utiliser. Euh, fii ci Sénégal euh, du Sénégal rek ci Afrique ci àdduna bi yëpp drogue bi nga xam ne moom lañuy ñuy gën a utiliser mooy li tubaab di wax cannabis ni ñu koy wax yamba fii. Mhm. bëri na ay tur mais tour bi ñu ko gën a ràññee Sénégal mooy yamba. Mhm. xeetu drogue boobu mooy bi nga xam ne moom lañ gën a jëfandikoo fii ci réew mi ak comme ni ma ko waxee sànq ak ci Afrique. ak ci ak ci àdduna bi yëpp. Mm-hmm. Euh, loolu nag li nga xam ne moo ko waral mooy que dañ jàpp ne moo gën a jàppandi parce que foo dem ma nga fa foo dem mën na fa sax. parce que mooy xeetu drogue bu nga xam ne foo ko yóbbu mu sax xëy na yeneen yi bu leen andi woon fii leen fi bàyyi du du du sax parce que suuf si ñu yoree ak climat bi ñu yoree méngawul ak ñoom. Mm-hmm. waaye yàmba mooy drogue bi nga xam ne foo ko yóbbu moom dana adapté wu. Mm-hmm. maanaam dana mën a sax fépp. ci àdduna bi amul benn climat amul benn suuf boo xam ne mënu cee màgg mhm. d'ailleurs mooy drogue bu mel noonu moom rek moo mel noonu d'ailleurs mhm. loolu moo tax foo dem ci àdduna bi ni ñaa ko fay bay Euh, drogue boobu loolu tax na mu gën a yomb jël et puis njëgam aussi comme que moom moo gën a njëg yi day xaw a gën a yomb yeneen par rapport ak yeneen yi mhm. donc euh, loolu aussi euh, tax na ñi koy gën di jëfandikoo Euh, mais fii Sénégal dafay am solo ñu leeral ne drogue boobu rek nekku fi. Mhm. Euh, drogue yi ngay dégg maanaam lu mel ni cocaïne lu mel ni héroïne lu mel ni crack yooyu dañ ko fi jël aussi bu baax a baax euh, d'ailleurs am na ci ay firnde yoo xam ne am nañ ko ci mais yamul ci lool rek sàngara si alcool doon na loo xam ne aussi ci xeetu drogue la dugg dañ ko fiy jël bu baax a baax. dañ fiy jël aussi li nga xam ne moom la tubaab bi di wax les solvants organiques ñu ngi koy wax gaz xale yi dañ koy jëfandikoo bu baax a baax. Mm-hmm. yooyu yëpp ay xeetu drogue am na xeetu drogue sax yu bees ay amphétamines yu bees yoo xam ne génn na. Mm-hmm. yoo xam ne effectivement gis nañ ne. Euh, yenn médicaments yi nga xam ne ay médicaments psychotropes lañ dañ koy jëfandikoo di ko fajee ji nga xam ne seen xel dafa wàññeeku am ñoo xam ne seen xel wàññeeku ñu koy jëfandikoo di ci drogué wu euh, ñu koy wax ay xoox mooy ñi lokk ay xoox yu mel noonu. Mm-hmm. yooyu yëpp ay xeetu drogue la yoo xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo fii ci réew mi eh, jëfandikoo boo xam ne mën na andi njaxare. Mm-hmm. Eh, parce que bu ñu seetloo li ci ëpp ñu koy jëfandikoo ay ndaw lañ. te ndaw ñi nit ñi xam nañ ne réew mu mel ni Sénégal soxla na ay ndawam parce que réew la moo nga xam ne jafe-jafe yi bari na. Euh, li nga xam ne moom lañ gën a soxla mooy ay ndaw ñoo xam ne sell nañ wér nañu ci seen xel wér nañ ci seen yaram pour mën a liggéey mën a jàng mën a liggéey réew mi dimbale seen bopp dimbale seen waajur et contribuer au de ce pays là. Mm-hmm. bu fekkee ne ndaw ñooñu ñu ci gën a bari wala ñu ci bari ci ñoom dañuy jëfandikoo drogue mu nasaxal leen yi wàññi seen xel wàññi seen doole wàññi seen wér-gu-yaram euh, def ñoom ay nit ñoo xam ne xëy na buñ màggee duñ mënal seen bopp dara bay mënal seen ñi waa kër wala di mënal réew mi dara Euh, au contraire charge la ñuy doon ci nit ñi euh, charge la ñuy doon ci réew mi donc lu mel noonu dafay tax njàqare day am te loolu nag malheureusement mooy li am. Mhm. bëri na ay ndaw ñoo xam ne tey li leer ba leer mooy ñoom mën a seen bopp mën a luñ seen njëriñ mën a luñ seen famille et a luñ aussi dara. lépp loo xam ne dana mën a contribuer au développement de ce pays là parce que seen yaram mënatul liggéey boobu liggéey seen xel nekkatu fi bu ñu mën a liggéey mm. donc ñooñu euh, plutôt charge la ñuy doon ci seen i famille ci mm. état bi ci ñun ñëpp charge la ñuy doon mm-hmm. donc loolu dafay doon loo xam ne dafay andi ay jafe-jafe te li ci gën a doy waar mooy que euh, dañu seetlu ne même boo duggee ci biir école yi ci biir mm-hmm. école yi nga xam ne xale yi dañ faw jàng mm-hmm. euh, ñun ba ñu gën a ndaw di jàng école Euh, xëy na yu bari amuloon ci école yi. Mm-hmm. tux cigarette sax kenn ñëw ko woon ci biir école yi mais léegi xale yi waxuma la tux cigarette mais euh, dañuy naan sangara ci yenn école yi. dañ fay tux yàmba ñun am nañ ci ay firnde yu man fa may liggéey andi nañ fa ay élèves du benn yoon du ñaari yoon yoo xam ne dañ leen jàpp ci biir école bi ñu fay tux yàmba. Mm-hmm. wala ñu fay naan sàngara ña leen di jàngal jàpp leen andi leen. ban ban tranche d'âge la ñuy farataal di am euh, bon particulièrement ci ci ñi ñuy jóge ci école yi je enseignement supérieur la ñu nekk wala moyen secondaire. ñun ñi ñu recevoir ñu ci gën a bëri moyen secondaire lañ ay booy xale yoo xam ne ñu ngi joon def ay diggante quatrième ak troisième. Euh, ñu ci waaw ñooñu la mais. Euh, enseignement supérieur bi aussi xëy nañ ñu recevoir guñ ko jógee foofu waaye li leer mooy que foofu aussi am na fu baax baax. Mhm. parce que ñun am na ay jàngat yoo xam ne def nañ ko ci université yi effectivement gis nañ ne ñu ko fay jëfandikoo bari nañ trop. Mhm. Euh, donc euh, pour wax rek ne fi nga xam ne barab yi nga xam dañ fiyay jànge muy doon ay école yu ndaw yeeg yu digg doomu yi ak sa université yu mag yi mm-hmm. drogue yi ña nga fa nit ñi di ko jëfandikoo loolu aussi dafa doy parce que bu fekkee ne euh, espace yooyu nga xam ne dañ jàpp ne dañ fa waroon yar xale dañ fa waroon encadrer xale dañ fa a former ay citoyens bu demee ba nga xam ne nit ñi dañ fay yàqoo ci yu mel noonu day day day doy waar. Mm-hmm. donc loolu lu ñu seetlu la mu doon loo xam ne véritablement il faut que ñu taxaw ci. Euh, askan wi taxaw ci euh, état bi taxaw ci pour que lu mel noonu wàññeeku jàpp nañ ne daal euh, mbiru drogue moom problème la fii ci Sénégal. Mm-hmm. dëgg dëgg bu ñu waxante dëgg. Mm-hmm. Cheikh euh, Diop bu ma la déggee dafa mel ni eh, jëfandikoo bu ñuy jëfandikoo wax nga ko drogue bi fii sinébar bi fii ak euh, beneen produit bi nga waxee moom la ñuy wax gaz dafa dafa dafa dafa lim dafa yokk tey jii bu fekkente ne am nga ay chiffres à l'appui benn benn petite statistique rek euh, ci ban pourcentage bu société eh, société bi lañ ci mën a jàpp. xam nga ñun nag suñu liggéey li ci gën a sooxe loolu bokk na ci. d'accord euh, danañ def ay natable rek pour wone benn tendance waaye fii ci Sénégal euh, dama bëgg a fàttali amul benn ba Sénégal di Sénégal ba léegi amul benn enquête amul benn étude boo xam ne organiser nañ ko. Mhm. Euh, du ci état bi. Mm. du ci organisation communautaire yi amul mm. benn étude boo xam ne organiser nañ ko pour natt xayma mm-hmm. euh, ñiy jëfandikoo drogue ci Sénégal naka lañu ñu toll mm-hmm. loolu amul mm-hmm. euh, may profité rek di di di féliciter euh, waa comité interministériel bi nga xam ne le général Matar moo ko jiite parce que fan yi man bokk naa ak ñoom liggéey bu nga xam ne ci plan stratégique nationale du contre la drogue bi. Euh, nas nañ ne danañ def jàngat bu mel noonu xool def benn enquête nationale sur la consommation et le trafic de la drogue au niveau du Sénégal. donc loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy waajal. mu doon loo xam ne xëy na buñ ci accès dana dana leer. Euh, mais li nga xam ne moo ci am solo mooy jàngat bi nga xam ne mën nañ ko def mooy ñun ñi nga xam ne dañ leen di recevoir man mii di wax ak yow du ma toog semaine. boo xam ne lum mu bon bon bon recevoir ñeent wala juróom wala juróom benn nit chaque semaine en moyenne danaa recevoir lu mat juróomi nit donc ñoo xam ne dañuy am problème drogue bam mu commencé leen andi ay jafe-jafe ñu andi leen ci ñun centre Jacques Chirac pour ñu xool naka lañ leen dimbalee. donc loolu dafay doon loo xam ne boo ko toppee ba at mi jeex day doon lim bu am solo. Mm-hmm. te du fii rek du centre Jacques Chirac rek la ñuy ñëw. Mhm. parce que am na ñoo xam ne xëy na bu amee lu mel noonu dañuy dem directement ci hôpitaux yi nga xam ne ñooy toppatoo waaru feebaru xel. boo demee fu mel ni CEPIAT benn euh, centre la boo ko xam ne dafa spécialisé wu ci wàllu faj ñi nga xam ne dañoo am problème sinébar aussi am na ñu fay dem. mooy bi nekk Fann. Euh, am na ñuy dem Thiaroye. am na ñoo xam ne sax joxewuñ fii ña nga Kaolack ña nga Ziguinchor ña nga Louga ña nga Bakel et cetera. Mm. donc euh, ñooñu xëy na ñoo ëpp ay jafe-jafe sax parce que ñoom problème yi mel noonu buñ ko amee gis foo xam ne mën nañ fa dem institut boo xam ne am na spécialité boobu du leen yomb pour wane rek ne véritablement euh, nit ñi nga xam ne dañuy consommer drogue ci Sénégal tollu nañ ci lim boo xam ne vraiment jéggi na dayoo. Mm-hmm. parce que pour ñun rien que Sandra Chirac bu fekkee ne weer bu nekk chaque mois da nga recevoir lu bon bon trente à quarante personnes par mois yoo xam ne dañuy ñëw foofu ndax dañu am ay jafe-jafe drogue loolu day andi firnde ci ne consommation bi véritablement jéggi na dayoo. Mhm. Euh, te lu ci ëpp ay xale lañuy doon bu ma ne xale mooy euh, ñi ci ëpp euh, amuñ fanweeri at ak juróom. Mhm. ñu ci ëpp léeg-léeg nga gis koo xam ne dana ëppal at yooyu mais li ci ëpp. ñu ngi am diggante fukki at ak juróom ba fanweeri at ak juróom ñi ci ëpp. ñi ci ëpp li ci doy waar aussi mooy que léeg-léeg nga jigéen rax ci léeg-léeg aussi ñu andil la koo xam ne jigéen lay doon boo xam ne dafa dugg ci njëlum drogue bi ba mu andil ko ay jafe-jafe. Mm-hmm. xëy na boo comparé ak góor ñi góor ñi leen ëpp fuuf. Mm-hmm. mais léeg-léeg aussi jigéen ñi ñu ngi ci commencé ñu ngi ngi ci commencé bokk du sax. léegi yàgg nañ ci. ay yàgg na yàgg na sa fait des années effectivement dañuy recevoir ay même bu dee ay benn benn la léeg-léeg nga dajeeg jigéen joo xam ne dafay am ay jafe-jafe yu mel noonu. Mhm. yoo xam ne njëlum drogue moo ko ko ko yóbbee. Mhm. donc loolu doon loo xam ne vraiment euh, war nañu soxal ñun ñëpp parce que effectivement jigéen moom. Euh, boo xoolee rôle bi nga xam ne am na ko ci suñu biir société Euh, danañ xaar ci moom leneen lu dul muy muy jël drogue. Mhm. donc loolu véritablement doon loo xam ne aussi c'est un phénomène boo xam ne dafa commencer inquiéter. parce que at mu nekk. gisuñ ne tendance bi dafa wàcc mais plutôt dafa yokk euh, et puis ma profiter ci rek euh, di signaler ne am na loo xam ne drogue la dañ koy jël jàpp ne du drogue te jigéen ñi dañ koy jël ñu xaw ko banaliser mooy shisha bi nga xam ne dañ koy tux mhm. xale yu jigéen yu bari biir Ndakaaru dañ koy Euh, jàpp ne voilà pour effet de mode wala yu mel noonu mais bu ñu waxee euh, li ñuy wax scientifiquement parlant dafa bokk ci xeetu drogue yi. Mm-hmm. waaw parce que effectivement il faut que loolu nit ñi xam ko. Mm-hmm. Euh, pour mun ko moytu aussi. Mm-hmm. voilà. ñu bëggoon xam rek ndaw yooyu nga xamante ne ñoom ñooy farataal di ñëw ci centre boobu di Jacques Chirac bu ñuy ñëw ci ban état d'esprit la ñuy nekk. ça parce que am na ñoo xam ne ñi ci ëpp nag buñ fay ñëw seen i waajur moo leen di andi seen yaay moo leen di andi lu ci ëpp. parce que liñ seetlu aussi mooy jigéen ñi ñoo ci ëpp farlu néew na nga gis euh, papa buy andi doomam lu ci ëpp seen yaay moo leen di andi seen wala seen mag bu jigéen. waaw jigéen ñi daal. waaw waaw lu ci ëpp daal wax dëgg yàlla loolu moom dañ koy témoigner jigéen ñi ñoo ëpp li ñuy taxaw seen doom bu fekkee ne dugg na ci mbiru drogue yooyu. am na nag ñoo xam ne dañ fay andi seen bopp volontairement duñu ànd ak kenn. Mm-hmm. Eh, mais ñi ci ëpp nag dañ leen di andi. Mm-hmm. donc euh, état d'esprit nga xam ne dañ fay ñëwee euh, ñenn ñi dañ fay ñëw parce que. Euh, xëy na ñoom du seen du seen du seen volonté maanaam sabablu wuñ ko seen waajur moo ko sabablu mm-hmm. donc am na ñoo xam ne nag ñoom seen bopp ñooy am seen volonté andi seen bopp kon ni ma ko waxee duñ ànd ak seen waajur. liñ seetlu rek mooy malheureusement bu fekkee ne waajur yi leen di andi aussi mu doon lu am solo ñaare dañ leen di yéex a andi dañ leen di yéex a andi dañuy yéex a andi cest à dañuy dem ba nga xam ne sawaay commencé na am ay problème euh, di andi ay jafe-jafe ci biir kër gi di fa andi ay trouble mm-hmm. di def yenn mbir yoo xam ne vraiment day déranger waa kër gi ci moment boobu lañ koy andi euh, fekk xëy na sax commencé na moom perd yenn lu bari ci moom waaw commencé na perdre contrôle Euh, xelam commencé na jaxasoo euh, mbir mi muy jël ëpp na ko doole ci moment boobu lañ leen di andi. parce que ñoom lu ci gën a bari ñaar moo am euh, xëy na duñ ko teel a xam parce que ki nga xam ne dafa nekk sa doom wala si dafa nekk ci kër gi di jël drogue day nëbbatu mën na ko jël lu yàgg bu fekkee amoo seetlu bu baax doo ko xam ne mu ngi koy jël. Mm-hmm. donc ñenn ñi dañ dul teel a xam ne seen doom mu ngi jëfandikoo drogue. Ah. ñenn ñi aussi. buñ ko xamee xëy na dañ koy nëbb ndax ay raisons yu bëree bari parce que dañuy jàpp ne loolu gàcce la ci ñoom euh, et puis fii Sénégal xam nañ li fi xew euh, suñu jigéen ñu ci gën a bari da ngay wax ne lii gis sama doom di ko def euh, sama nawle yi buñ ko yëgee sama wujj bu ko yëgee ñëpp pesanteur yi gàcc lay doon ci man donc duñ ko teel a nangu Euh, dañuy jéem a nëbbatu ànd ak moom di dem ci maaman yeeg yooyu di fajag ak yooyu euh, ba nga xam ne mbir mi ëpp na leen loxo nag ñu doog a euh, ñëw ci ñun. Mhm. donc yooyu mooy tax ñaare ñi andi foofu ci ñun bu ñu leen di andi malheureusement dafay xaw a yeex. Mhm. mais saa yu ñëwee rek ñun état bu nit ki ñëwee rek lañ lay jéem a xool naka lañ lay jëlee en charge. Mhm. parce que ak état bu mënti toll nag. bu ñëwee ñun am na taxawaay buñ ci am. danañ la recevoir danañ la dalal bu fekkee laaj na dañ la gunge nga faju parce que am nañ ay médecins yoo xam ne dañuy collaborer ak ñoom ñu leen di faj bu fekkee laaj na gunge aussi ci yenn anam yu bëree bari mhm. dañ ci taxaw mhm. mais globalement ñi nga xam ne dañ leen di andi foofu buñ leen di andi ñaare du day xaw a day xaw a yeex mhm. day xaw a yeex li ko waral nag mooy yooyu li ma wax sànq rek mhm. xëy na duñ ko xam wala buñ ko xamee it dañ koy dañ koy mëpp mëppal ba mu jéggi loxo loolu nag amut amut solo mhm. te ñaar lu ñu mën a moytu la parce que gis nga xale boo koy yar dafay bàyyi dafay am solo nga koy bàyyi xel waaw di seetlu fii nag daa suñ doom yi daanaka duñ la seetlu xëy na duñu boo waxee ñu ne aw ma jot damay xëy dem yaay ji jigéen ñi gis nañ ne ñu si gën a bari léegi aussi seen kër dañ fay teel génn Euh, xëy na jot bi contrôler xale yi duñ ko am Euh, yu bari daal waral na. ni euh, responsabilité parentale euh, day dafa impliqué. waaw dafay impliqué wu bien sûr xëy na nag man mbokk ma ci ñuy wax démission des parents xëy na démissionné wuñ. Mm-hmm. parce que nit ki aussi li nga xam ne moo lay jox sa teraanga mooy tax ngay dundal sa njaboot faaw nga fonk ko. Mm-hmm. donc boo sañoon xëy na da am jot mën a contrôler say doom mais bu fekkee yaa ngi liggéey aussi loolu doo ko mën a matale ni mu waree. Mm-hmm. donc mais li am solo daal mooy ñu xam ne. Euh, bàyyi xel bi nga xam ne dañ ko war a bàyyi xel xale yi manqué na. Mm-hmm. manqué na te loolu lu ñu war a delloosi la. Mm-hmm. Euh, di leen contrôler parce que yar aussi du rek euh, jox mu lekk jox mu naan fayal ko mu jàng. Mm-hmm. bokk na ci nga koy seetlu di observer ay comportement yam saa yu soppeekoo nga xam ne soppeeku na. jéem a xool rapidement lan moo waral soppeeku bi jéem ci taxaw. malheureusement loolu duñ ko am. donc loolu lu ñu a mën a mooy lu ñu mën a saafara la nañu gën a bàyyi même bu fekkee da saa yoo ñëwee del xam ci lu mu nekk. Mm-hmm. loolu la donc euh, nëpp nëppal bi nag moom euh, lu ñu war a bàyyi la. Mm-hmm. lu ñu war a bàyyi la. parce que gis naa ne ku ko def sax loolu non seulement dimbali woo yow sa doom mais yow sa bopp mbir mi ci yow lay mujj. yow lay mujj parce que xëy na boo doon bañ gàcce bañ ko la xamal da nga toll foo xam ne ñëpp dañ xam li xew. parce que bu demee ba nga xam ne na kët na jonn li doon nëbb yëpp dana feeñ te gën a métti. donc li nit ki bu fekkee ne da nga yor sa doom wala sa jarbaat ak ku mënti doon mu nekk sa responsabilité bu fekkee dafa dugg ci mbir yooyu nga teel ko xam ci jóg yóbbu ko fa nga a yóbbu andi ko sans wala nga yóbbu yóbbu ko feneen beneen spécialiste boo xam ne mbiram xam-xamam màcc na ci wàll woowu ñu jëm ko taxawu teel ci jóg bañ a nëbbatu bañ a nëpp nëppal donc loolu véritablement lu am solo la. Mhm. donc attitude yooyu daal xëy na loolu la ñuy conseiller parents yi nga xam ne seen doom dugg na ci mbiru drogue nañ ci teel a taxaw parce que loo ci gën a teel a taxaw mu gën a gën a yomb a faj. Mhm. mais bu demee ba yàgg ci. Euh, day gën a jafe faj bi day gën a jafe. Mhm. bi day gën a jafe euh, ñu aborder ci boobu la lancé rek bëggoon la laaj tey jii ndax euh, prise en charge bi soxal ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo xeetu sinébar bi ba certainement ñu jëlee leen seen kër yóbbu leen ci centre boobu di Jacques Chirac autant pour moi ndax prise en charge bi yomb na. yombul d'ailleurs euh, euh, euh, prise en charge nit ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo drogue moo yombul sax ci àdduna bi yëpp. Mhm. ñun yàlla def na tukki nañ fu bari gis nañu ci réewu tubaab yi ak réewu Afrique yi gis nañu ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllu woowu jafe-jafe yi ñuy am parce que dafa nekk mbir mu xaw a doy waar parce que mbiru drogue dadul mbir moo xam ne feebar bi nga xam ne moom lay andi ci nit ki bokkul ak yeneen feebar yi du du siburu du sida du leneen ak leneen parce que feebar la boo xam ne dafay jàpp xel aussi dafay jàpp xel te lépp loo xam ne kenn mënu natt kenn mënu ko natt mm. donc dafa doon loo xam ne dafa complexe euh, fii ci Sénégal nag euh, mën nañu wax ne jafewoon na ci ay jamono gënoon na jafe mais léegi quand même euh, bëri na loo xam ne ameliore nañ ko parce que jafe-jafe bu njëkk mooy bu njëkk amuñu woon benn structure bu spécialisé wu ci domaine boobu maanaam ku fi mësoon am problème ci drogue dañ la daan yóbbu faan wala ñu yóbbu l'hôpital Thiaroye boobu sans assurance sax nekku fi woon. Mhm. parce que fàttalikoon naa ko sans assurance quatre-vingt-quinze la lañ koy taxawal matagul fanweeri at. Mhm. lu ko jiitu ku amoon problème drogue Sénégal fu ñu lay yóbbu mooy hôpital Fann fu ñu lay yóbbu mooy hôpital yi te foofu boo fa ñëwee ci service psychiatrique yi lañ lay yóbbu. Mhm. maanaam service yi nga xam ne dañ fay faj ñi seen xel wàññeeku. Euh, ba tax na dañ assimilé woon sax ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo drogue ak ñi nga xam ne seen xel dafa wàññeeku. alors que c'est pas la même chose. est-ce que euh, différence bi mën nañ ko def. parce que euh, gis nga ni kiy jëfandikoo drogue feebar bi muy feebar addiction la ko tubaab di wax wala dépendance. waaw mais la dépendance c'est pas une maladie mentale aussi loolu la wuute na. Mhm. pathologie la. c'est vrai mais du feebaru xel comme liñ koy jàppee ñun. bokkul. Mm-hmm. bokkul euh, mais nag li nga xam ne mën nañ ko wax aussi mooy que bu fekkee yaa ngi jëfandikoo drogue te amoo paj mi war amoo taxawaay bi war. Euh, euh, mën na la yóbbu ba nga xam ne da nga ko ak sa sago kon mën na la ci yóbbu mm-hmm. mais a priori gis nañ ñoo xam ne dañuy jëfandikoo drogue ba am ci dépendance Euh, te dépendance nag c'est à des niveaux c'est à mhm. euh, parce que xam nga boo gisee sax ñuy jël yenn produits yi di leen considérer comme ay drogue euh, parce que bu ñuy def la classification des produits da ngay gis ne boo demee ba ci suuf am na lu ñuy wax les psychostimulants mineurs ci tubaab. buñ koy wax ci wolof xëy na dina jafe tekki mhm. mais. bépp produit bu nga xam ne daal euh, nit ki da kay jël te bés bu ko gëjee jël wala mu bàyyi ko brusquement mën na ko andil ay jafe-jafe xelam dana ci nekk loolu bokk na ci lu mel ni café yi ñuy naan ataaya yi ñuy naan bokk na ci guro yi nga xam ne suñu maam yi dañ koy faral di yey parce que yooyu dañ ko mën di wax yow naankatu café bu mag la mais euh, euh, bu dul koor bu ma xëyee nii toog ba quinze heures seize heures naanuma kafe du ma nekk comme ni ko gars yi di waxee donc loolu day am benn état de manque boo xam ne dafay nekk ci yow xëy na cawarte nga waroon ci sawar euh, na nga waroon nekkee ci sa bopp lu bari dina ci wàññeeku donc loo tax produit yi sax ñu dugg leen ay psychostimulant mineur mm-hmm. parce que dafay am forme de dépense naan bu ndaw boo xam ne ñun dañ koy am aussi mm-hmm. donc euh, ñun aussi euh, euh, même bu ñu jëlul yamba jëriñ héroïne er, jëriñ cocaïne xëy na léeg ñu jël produit boo xam ne aussi dafa ñuy installer un peu dans la dépendance mm-hmm. ba nga xam ne bés bu ñu ko ñàkkee rek mu feeñ ci ñun. day am lu muy def day am lu muy ataaya yi vrai bu ñu xëyee tuuba cinq heures te naan ñu ataaya dana am lu mu leen di wàññi. dana wàññi lu bari ci ñoom seen cawarte dana wàññeeku et puis dana bëri ay njeexital yoo xam ne dañ koy observer également ci ñuy jël café dañ ko observer ci ñuy tux cigarette dañ ko observer suñu maam yi comme ni ma ko waxee di yeey gros waaye mm-hmm. bu fekkee manqué nañ gros Eh, danañ dana bëri lu mu leen manqué mm-hmm. donc loolu ay forme dépendance yu ndaw la c'est pour dire que dépendance yooyu nga xam ne euh, dañ koy observer ci ñi nga xam ne dañuy jël drogue même bu fekkee c'est un autre niveau kenn mënu ko associer aussi à une maladie mentale euh, jafe-jafe bi nag pour dellu si ci li ñu doon wax léegi moo doon bu njëkk ñi daan jëfandikoo drogue dañ leen daan yóbbu foofu te médecin yi daan yóbbu aussi wax dëgg yàlla mbiru oh. drogue jànguñu ko woon mm-hmm. du woon seen spécialité maanaam mm-hmm. même buñ ci amee tuuti notion Euh, taxul mu doon seen spécialité donc ay médecins psychiatres ñoo leen daan faj ak ay ak ay jafe-jafe yu bari parce que d'abord fi ñu lay fi ñu lay faje sax mooy mooy mooy andi problème cadre bi du cadre bu baax ay cellules yoo xam ne ñii seen xel wàññeeku lañ leen fi ñoom fa lañ leen denc fa lañ leen di denc. Mm-hmm. yow boo ñëwee fa lañ lay denc. Mm-hmm. et puis contact bi ngay am ak malade yooyu sax mun na la andi yeneen jafe-jafe. Mm-hmm. Euh, loolu nekkoon jafe-jafe wax dëgg yàlla parce que aussi encore une fois. Euh, ki nga xam ne dafa dépendant à la drogue c'est pas un malade donc war nañ ko faje ber fu dul fi ñuy faje malade mental ak beneen approche budul boobu mhm. euh, d'ailleurs ñu bari sax ba léegi nii boo leen waxee dama demal faan nga faju yi dañoo xam non man du ma dem foofu parce que man dof man saa yi plusieurs fois man dalal na ay nit defal leen référence ne la demal obstépiatre bi nekk faan nga faju yi réflexe boobu mooy ñëw mu ne la non grand xoolal man dama am problème drogue mais man dofuma waaw sama problème mooy dépendance bi par rapport ak li may jël. Mhm. mais bu ma yóbbu ci fu ñuy faja ay dof parce que man dofuma. Mhm. réflexe boobu effectivement dafay ñëw. Mhm. ci ñenn ñi nga xam ne amuñu information bi nga xam ne moo war parce que tey fan lool nekku fa. tu am na institut bu spécialisé wu ci wàllu woowu foofu CEPIAT. te nga tudd ko léegi mu nekk biir Fann mhm. structure bu nga xam ne dafay spécialisé dans le traitement de la dépendance mhm. ña fa nekk di faju seen xel wàññeekuwul mhm. dañ leen di faj ci leen ñu ñibbi seen kër donc loolu effectivement il faut nit ñi xam ko loolu moo doon jafe-jafe bu njëkk mais di Sandra Chirac taxawee te tey effort état Sénégal def na ay effort yu bari parce que am nañu ay médecins addictologues mooy médecins yoo xam dañuy spécialisé dans le traitement des addictions addiction boo ko déggee mooy dépendance rek waaw donc la am nañ ay médecins yoo xam ne tey am nañ spécialité boobu jàng nañu lan mooy traitement dépendance euh, à la drogue et pas à la drogue sur toutes les formes de dépendance parce que dépendance dafa bari ay ay anam. Mm-hmm. mais li nga xam ne moo am solo mooy que tey am nañ ñoo xam ne spécialisé boobu am nañ ay structures yu spécialisé wu CEPIAT bii nga xam ne 1900 2015 lañ ko taxawal. Mm-hmm. yàggul trop mu ngi ci juróomi atam ren. Euh, aussi c'est une boo xam ne bëri na loo xam ne andi na ko fi parce que comme ni ma ko waxee médecin ay addictologue ñoo fa nekk lu am solo lu am solo ay médecin yoo xam ne xarañ nañ ci wàllu traitement dépendance ña nga fa et yemul fan rek parce que tey boo demee hôpital Thiaroye yi ñu ngi installé aussi structure bu mel noonu am na benn service addictologie bu nekk foofu boo xam ne commencé na fonctionner yàggul trop lu mel noonu ñu ngi koy tabaxaat ñu ngi koy tabax Kaolack ñu ngi koy tabax euh, aussi Ziguinchor euh, mbuur am na fa boo demee ci biir hôpital Mbour am na service addictologie boo xam ne effectivement am na fa. Mhm. donc euh, am na ay programme aussi yu am solo yoo xam ne ñun ñii dañ ciy liggéey. Mhm. ànd si ak suñuy partenaire xëy nañ dañ ci ñëw ay ANCS. Mhm, di jàppale ñi nga xam ne dañuy euh, jëfandikoo drogue di leen aar pour ñu bañ a am li nga xam ne mooy feebaru sida. donc loolu aussi doon loo xam ne vraiment ay avancées yu am solo. Sénégal quand même tey bokk na ci Afrique man. Euh, participer na ci ay rencontre yoo xam ne yagul dara ñu ngi ko defee woon CEDEAO Abuja boo xam ne réew yi nga xam ne dañ bokk CEDEAO yëpp dañ fa daje woon di xool yan réponse la ñuy am mhm. euh, face à la consommation et le trafic des drogues en Afrique de l'Ouest mhm. ñun ñoo ngi fa woon Sénégal mhm. euh, mais bi ñu defee suñuy présentation ba pare euh, Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne dañ koy citer en exemple ci effort yi nga xam ne dañ koy def ci wàllu xeex drogue parce que fii San Jacques Chirac ngi fii bëri na yoo xam ne boo fa demee Afrique doo ko gis. Mhm. centre boo xam ne spécialement liggéey mooy def prévention ak prise en charge des consommateurs de drogue. Mhm. Euh, benn la fii mun nañ ko wax. Mhm. bëriwul en Afrique euh, tu ne verras jamais dans un pays fii en Afrique de ah, l'Ouest euh, ne loolu lay liggéey. spécifiquement amul. li amoon fii moo fa amoon rek ay services psychiatriques lañ amoon boo demee fa la ñuy yóbbu képp ku am problème drogue fa lañ lay yóbbu loolu moo amoon Côte d'Ivoire moo amoon Euh, seul le Sénégal avait un centre spécialisé sur la prévention Euh, et la prise en charge des consommateurs de Sénégal rek moo ko amoon et ba léegi tey d'ailleurs moo fi am mm-hmm. euh, CEPIAT tey boo demee yenn réew yi xëy na ñu ngi tabax yu mel noonu mais Sénégal moo ko njëkk am mm-hmm. bi ñuy tabax CEPIAT fi en 2015 boobu benn réew ci Afrique amu ko euh, bi ñu amee ay médecins addictologues Sénégal mooy dëkk bi njëkk am ay médecins addictologues en Afrique de l'Ouest boo demee Université Dakar am na sax euh, benn euh, kii bu ñu ubbi léegi cours spécial mhm. sur sur sur euh, un cours d'agitologie benn loo xam ne amul module bu ñu fay jàngale boo xam ne amul ci benn université fii mhm. en Afrique donc pour wane ne véritablement Sénégal ñu ngi def ay effort hmm. am nañ comité interministériel boo xam ne mu ngi fii aussi di góorgóorlu am plan stratégie nationale boo xam ne xëy na boo demee Afrique euh, ci yenn dëkk yu bari gis fa un plan stratégique national lutte contre la drogue bariwul hmm. ñu ko am bariwul hmm. donc Sénégal am na ko d'ailleurs fan yi di ñëw rek am nañ benn séminaire bu ñu war a dem pour euh, gën a taxawal flan bi donc voilà effort yi nga xam ne Sénégal def na ko mais nag euh, prise ba léegi des na matul boo demee ci yenn dëkk yi amu fa Sénégal du dakaar kese mhm. euh, boo demee ci dëkk yi nga xam ne moo gën a éloigné bu weesoo yi ma cité fii Kaolack Mbour mhm. Ziguinchor ak yooyu bëri na yoo xam ne boo fa demee gis structure boo xam ne wala service boo xam ne day fay jël en charge ñiy consommer drogue daanaka amu fa euh, ci yenn yenn région yu bari médecin additologue yi nekkuñ ci yeneen région yi Sénégal Dakar rek la ñu nekk mhm. ñu ngi Fann ñu ngi Thiaroye ñu ngi hôpital principal mhm. parce que li ma fàtte wax aussi mooy waa hôpital principal may profito di nuyu le colonel Tabara Silla mhm. médecin additologue la bu nekk foofu aussi di def liggéey bu am solo di traité ñi nga xam dañuy jëfandikoo drogue ñi jëfandikoo alcool ñun dañuy jàppale bu baax ci liggéey bi ñuy def donc loolu dafay wane ne euh, sur le plan de la couverture géographique Euh, am na am na ay manquement mhm. donc réew mi bëri na ay partie yoo xam ne vraiment euh, problème yu mel noonu bëri na fa te gisuñ fuñ ko mën a fajee mhm. donc loolu daal mooy manquement bi ak wàllu koppar aussi c'est vrai parce que amul tey koppar yu day pour prendre en charge cette population la mm-hmm. maanaam ñi nga xam dañuy jëfandikoo drogue comme ñi nga xam ne seen xel dafa wàññeeku. Mm-hmm. Euh, koppar yoo xam ne mën na leen jàppale pour ñu faj leen ci anam yi war amul. Mm-hmm. donc euh, lu ci gën a bari comme ni nga koy waxee dañuy taxale rek donc loolu aussi ay jafe-jafe la. voilà. Mm. Euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali yéen a ngi déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Diop moom Cheikh Diop nekk coordonnateur bu centre de sensibilisation et d'information sur la drogue ñu gën koo xamee ak euh, centre Jacques Chirac Cheikh dañuy continuer rek euh, ci ci wàllu woowu bu weeso prise en charge bi nga xamante ne mën na nekk ci seen i jafe-jafe yi te jii ndax euh, koo xamante ne dañ ko indi woon au niveau du centre Jacques Chirac bu demee ba euh, faju ba weer ndax réinsertion sociale am euh, dina dina dina yomb am ngeen benn politique d'accompagnement boo xamante ne bu génnee bon dina mën a intégrer waat la la la société comme il se doit. waaw loolu aussi ay ay jafe-jafe la parce que gis nga faj nit ki lu am solo la mais gunge ko aussi mhm. ba mu mën a dellu si ci société bi mhm. ba nga xam ne la ko dugaloon ci mbir yooyu véritablement dana ko moytu ba du ci duggaat loolu aussi lu am solo parce que liñ gën a seetlu aussi mooy ñu bari leen di jàppale faj leen mais après quelque temps ñu commencé waat dañuy récidiver dañuy euh, rechuter comme niñ koy waxee suñu suñu suñu suñu langage euh, mais Euh, loolu li koy waral mooy nit ki du am jàppale bi war faj nañ ko dëgg la mais jàppale bi waroon dëgg dëgg dëgg pour mu mën a dellu amu ko donc loolu dafa doon loo xam ne lu ñu seetlu la euh, ñun nag euh, wàllu woowu li nga xam ne lañ ciy def mooy que d'abord li ñuy wax réinsertion familiale au niveau de la famille d'abord mm-hmm. di def liggéey bu ñuy wax médiation familiale mm-hmm. parce que nit ki d'abord bu fekkee dafay jëfandikoo yu mel noonu jafe-jafe yu njëkk am ci biir famille lay doon famiyam ñu bari dañ koy ber dañ koy beddi dañ koy euh, vraiment. dañ koy euh, beddi. néewal ko mm-hmm. daanaka duñ ko boole ci seen bopp. Mm-hmm. waaw parce que fii ñëpp xam nañ ne bu fekkee ne yaa ngi am yenn comportement yi sa biir kër d'abord fa la nit ñi njëkk euh, ñoo lay njëkk a indexé ñoo lay jur say mag say rakk say jarbaat ñoo lay njëkk a joxoñ mm-hmm. ñoo lay njëkk a ber. donc euh, d' abord liggéey bi foofu la fexe ba d' abord nit ki ci biir famille am euh, ñu mën ko nangul jafe-jafe yi mu am euh, et bokk ci ñi nga xam ne aussi dañ koy jàppale pour mu génn ci loolu. Mm-hmm. parce que centre Jacques Chirac ak médecins yi lay booleel doyul sa waa kër aussi il faut ñu dugal ci seen loxo. il faut ñu impliqué wu ci. parce que nit ki loo ko mënti defit loo ko mënti defaral bu fekkee ne famille am dugaluwu ci loxoom jàppalewuñ ko. du sotti. bëri na ñoo xam ne da nga leen di faj lu ne nga daj ko ci ñoom mais bu ñu demee ca famille ba loo xam ne mooy yàq loolu nga defoon yëpp. donc ñu bàyyi loo xel njaboot yi ne famille bi ci boom dafa am taxawaay bu mu am. boo xam ne war na ko am pour que ki nga xam ne mooy seen doom wala mooy seen jarbaat génn ci situation bi mu nekk. loolu d'abord c'est un boo xam ne ñun médiation fam familiale lañ koy tuddee maanaam nit ki bu ñëwee parce que bëri na ñoo xam ne dañuy ñëw. mais euh, véritablement dañu am ay jafe-jafe seen biir kër. Mhm. ñun dañuy déplacé wu lu ci bari déplacé wu nañ dem nañ ci biir famille yi discuter ak seen i waajur xam leen ne kii lii ko dal mën na ci génn. du nit ku bon xëy na am na lu ko dab ba mu dugg ci lu mel nii mais mën na génn ci li mu nekk mais fu fekkee ne yéen jàpp bokku leen ci ñi koy jàppale centre Jacques Chirac kese mënu ko dimbale. Mhm. donc loolu dafay am solo euh, que d'abord. ñu xam ne nit ki première carte de réinsertion c'est d'abord au niveau de sa famille il faut que famille bi jouer rôle dëgg-dëgg li ci des nag mooy au niveau sociale au niveau social au niveau professionnel euh, ñu xool naka la jàppale nit ki aussi parce que nit ki euh, aussi fexe ba bu màggee wala mu nekk mag mu am ci lu mu jàpp loo xam ne dinañ ci mën a surloowu euh, sàmm li ñuy wax dignitéem Euh, mën a jël en charge yenn besoins yi nga xam ne ay besoins élémentaires la euh, nit rus na ko ñaan nit rus na ko àbb mu mën ko fajal boppam loolu dafay am solo loolu dafay am solo euh, wàllu woowu nag ñun li nga xam ne dañ ko ci def mooy d'abord nit ki bu fekkee ne amul amul amul métier parce que ñu gën a bari ci ñoom ñaare du ñu am métier du ñu am qualification seen jàng du sori Euh, euh, voilà danañ fexe ba mu seet loo xam ne mën na ko def ci wàllu métier ñu dimbale ko mu suivre ko bu fekkee ne jàng weesuwul ci moom jàng métier weesuwul ci moom ñu yóbbu ko mu seet métier bi nga xam ne bëgg na ko mu di ko def ñun ci biir centre Jacques Chirac li nga xam ne am nañ ko fa mooy atelier de menuiserie boo ñëwee ci biir centre am na atelier de menuiserie boo xam ne ma nga fa mm-hmm. yàgg na fa war na ëpp léegi mu def fa vingt ans mm-hmm. euh, képp ko xam ne dalal nañ la dalal nañ la nga nekk xale nga bëgg def menuiserie dañ lay yóbbu foofu nga jàng fa menuiserie ci diir boo xam ne lu mu gàtt gàtt da nga ko fa def mu doon ñetti at da ko jàng menuiserie wala lu ko ëpp. de toute façon dañ fexe ba yow ba boo fay génn nga am sa qualification maanaam da mën métier bi. da nga da nga mën métier bi génnaale danañ góorgóorlu aussi ba mu doon loo xam ne euh, da nga am reconnaissance officielle maanaam certificat professionnel da nga ko am. Mm-hmm. ñu ngi ciy waaj liggéey ak ministre bi nga xam ne mooy ministre emploi pour que nit ki bu fa génnee mm-hmm. am certificat professionnel boo xam ne dana faciliter aussi ëllëg euh, réinsertion am ku ko bëgg a embauché yu mel noonu mm-hmm. euh, li manqué nag mooy koppar yoo xam ne dañ ko jox nit ki pour mu mën a installé parce que li gënoon mooy que nit ki bu fekkee jàng na ba pare nga teg ci loxoom dara loo xam ne dina ko mën a permettre mu ubbi entreprise am jënd ay matériel mm-hmm. loolu nag moom dafa manqué ci dëgg-dëgg amuñu moyen yoo xam ne eh, nit ki bu paree jàng dañ ko ko jox pour mu réinsérer wu amul. Euh, dañ am nañ possibilité véritablement formé la ci menuiserie bu fekkee beneen métier nga bëgg aussi même bu nekkul ci biir centre yi mën nañ fexe nga suivre ko parce que dañuy def li ñuy wax placement dans les ateliers. Mm-hmm. maanaam xeetu métier boo gis fii ñun am nañ patron bu koy def boo xam ne am nañu moom protocole protocole boo xam ne buñ ko andilee nit ki dana ko jël. dana ko jël malgré que xam ne ni kii ci ay jafe-jafe yii la nekk. mais dana ko jël parce que loolu mooy seen contribution ñoom aussi ñu leen di remercier bu baax a baax. dañuy accepter di ñu jëlal ñooñu. jàngal leen pour que effectivement lu mel noonu ñu mën ci génn. Mm-hmm. donc loolu euh, dañ koy def mais comme ni ma wax loolu rek doyul euh, état bi aussi ñu ngi liggéey ak moom partenaires yi ñu am ñu ngi liggéey ak Euh, des financements pour la réinsertion sociale et économique mhm. vraiment de ces personnes-là malheureusement loolu dafa sooxee mhm. waaw mhm. Euh, sànq am na wax bu am solo boo wax réinsertion sociale bi am na solo mais réinsertion familiale bi su ma la déggee moom mooy le socle pour ki nga xamante ne moom moo amoon moon moo doon utiliser li nga xamante ne moom moo di Sinébar pour mu mën a amaat confiance pour mën a reprendre sa vie en main comme on a l'habitude de le dire jii ndax il vous une fois ngeen def euh, face ci benn cas boo xamante ne vraiment seen famille dañu xawoon a ak yéen benn anecdote rek boo xamante ne bon euh, famille bi dafa xawoon dëgër histoire de euh, kii daal ci li mu nekk nañ ko ci bàyyi rek. mais bari na du du sax benn cas parce que famille yu ci gën a bari comme ni ma ko waxee ñu ci gën a bari ah. mhm. bu seen doom nekkee ci loolu daanaka pour ñoom gàcce la leen di andil. Mhm. Euh, li ñuy gën a dégg sax mooy bu fekkee ne dafa tànn moom mel nii na dem man am naa yeneen doom waaw am naa yeneen doom yi dul moom mm-hmm. tia yi moom comme que nii la ko yàlla bindee lii ci la nekk bon na dem parce que ñun du yàqal suñu dund am naa yeneen doom loolu dañ koy dégg lu lu bari mm-hmm. euh, pour anecdote am na benn xale xale bu góor bu am ay Euh, amul ñaar fukki at mm-hmm. ci centre bu la naan fanaan bien que centre bi amul nekk foofu mais buñ ñëpp wàccee euh, parce que centre bi dafay xumb bëccëg euh, dafa am ay activité sportive fay am terrain de basket dafa nekk vraiment dafay animé mm-hmm. ba ceek y a plusieurs jeunes yu fay nekk yu fay nekk centre ba chaque jour bu après-midi bi jotee la fay nekk ci xale jege na téeméer à travers activités yu mel noonu. Mm-hmm. mais bu demee ba mu guddi ña fay dellu gardien bi rek moo fay des ñu seetloon benn xale boo xam ne dafa daan fanaan di fa fanaan benn jour. Euh, gardien bi dem laaj ko lu tax ngay fanaan fii parce que fii du fanaanukaay mu ne dañ ko génne seen kër. Mm-hmm. dañ ko génne seen kër ndax drogue ba muy jëfandikoo. day tux day gaz ak mel noonu ñu génne ko seen kër moom amul fu muy fanaan ci centre bi lay fanaan foofu. mais ñun loolu bi ñu ko yëgee fexe ba xam wax ak moom mu yóbbu ñu ànd ak moom dem këram dem këram gis ay waajuram wax ak ñoom wax leen ne lii du solution. Mm-hmm. yooyu génne xale yi muy taxawaalu di fanaan ci mbedd yi du solution. Euh, ci njëlbeen gi euh, dañu bañoon. dañoo réticent dañoo réticent euh, xale bi topp nañ ci lu war a mat ñaari semaine waajur yi nangu mu dugg ci kër gi. Mm-hmm. Euh, mais mujj gi mujj gi mujj gi seen taxawaay soppeeku na. Mhm. parce que euh, waxtaan bi toll na foo xam ne ñoom xam nañ ne euh, bu fekkee nii la ñu ko ne di taxaw xale bi day sànku. waaw te bu sànkoo du doon lu leen gënal du doon lu gënal kenn. Mhm. et que dem nañ ba xam ne. ñoom am na taxawaay boo xam ne buñ ko ci amee xale bi mën na génn ci li mu nekk. Mhm. parce que dem nañ ba wan leen ne yéen bu ngeen soppee taxawaay ànd ak ñun ñu def li ñu war a def xale bi ni mu mel mën na soppeeku. waaw mhm. ah, biñ ñu ba xam loolu véritablement ànd ak ñun ci liggéey boobu. Mhm. Euh, loolu lu am solo la tey xale bi mu nga këram dellu si na di liggéey man mii di wax yow am na ko xam ne maa ko fat sama kër. maa ko fat sama kër. ndax it mu ko andee sama kër sax sama jabar ci xawoon tiit di ma wax ne yow nag yaa ngi andi ay jafe-jafe ñii moom nañ yem ci service ba kese mais andi leen ci kër nekk ak yooyu parce que dañ ko génne seen kër papam nangu ko nangu ko nangu ko nangu ko papam cadre la à la mm-hmm. am na ay kër yu muy luyee nangu mais nangul yóbbu xale bi nangul dëkk ak moom nangu ko yóbbu ci kër yi muy luyee da ko génne parce que effectivement pour moom xale bi doon na ko xam ne kenn mënul dëkk ak moom mm-hmm. man ma ne ma ñàkk pexe duma ko bàyyi mu fanaan ci mbedd yi dama ko jël yóbbu ko sama kër. Mhm. mu ànd ak sama sama doom la bokkaloon nekk. yooyu mhm. eh euh, mais papa ji dem na ba xam ne li ko war moom mooy récupérer doomam. yooyu eh damay jokkoo moom téléphone ñuy waxtaan ci yu bare bari mais tey si tey xale bi dellu na seen kër. Mhm. dellu na seen kër. Euh, mu ngi ci kër papaam retrouvé une vie normale arrêté na consommation bi je pense que yooyu dafa doon loo xam ne il foog nit ñi xam ko xam ne boo juree doom am na noo xam ne bu ko melee beddi ko dàq ko génne ko kër gi sa responsabilité bu ko dégager continuel euh, di ci jàpp xam ne ay jafe-jafe nit bu ko amee dafa soxla ko taxaw mm-hmm. ak lu mën ci doon et puis xam ne mbiru drogue fu ci nit mën di toll bu fekkee am nga taxawaay bi war war nañ mën a génn. Mm-hmm. et que ñoom en tant que responsable de famille. nañu bu seen responsabilité nañ ko matal rek. Mm-hmm. parce que loolu moo ci am solo ki da ngay waslu mm-hmm. ba fi nga yem. li ci des nag euh, ñeneen ñoo ci am wàll les professionnels que nous li ci des ci loxo yàlla la nekk. mais yow defal li nga xam ne mu nga war a def. donc loolu moo ci am solo. voilà assumer sa responsabilité. waaw ñu ñu ñu dellu si waat rek balaa ñu waxtaan wi wax ci seen mode de fonctionnement centre ci Chirac xam naa ne ñu ci bëri certainement majorité bi ay bénévole lañu tey jii naka ngeen di def pour rentrer dans votre foo am na ngeen ay partenaires financiers ak internationaux certainement mm-hmm. yu leen di mën a jàppale pour que ngeen mën a dimbali yooyu la xale mm-hmm. bon centre bi ay moyens quand même depuis le début Euh, moyens yi nga xam ne moom la soxla pour def liggéey bi mu war a def amu ko musu ko am d'ailleurs mm-hmm. euh, mais nag euh, il faut ñu wax ne kam état Sénégal jàppale na Sénégal centre bi bu baax a baax mm-hmm. parce que bu weesoo mun nañu wax ne état bi moo moo installé centre bi moom a coopération française wax naa ko ci départ bi au début bi état bi au début aussi subventionné centre bi ah au début je pense que Euh, ci at yu njëkk yi nga xam ne centre bi fonctionné ko jamono fi président Abdou Diouf nekkee ba ci président Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee mhm. daan nañ jot ay subvention yoo xam ne dina ma toll ci ay dix millions par année mhm. euh, pour yenn frais de fonctionnement yi am na aussi coopération française euh, ay subvention yu ñu daan jox à l'époque mhm. am na organisation bu mel ni ONUDC office des nations unies contre la drogue et les crimes mooy bànqaasu mbootaayu xeet yi nga xam dafay toppatoo wàllu drogue ci àdduna bi. Mm-hmm. te seen siège nekk fi Dakar ñoom aussi jàppale nañ centre bi. Euh, surtout ci ay formation ñun formation yu bëri yu ñu def euh, ñoom ñoo ko subventionné fii ci biir réew mi ak sur le plan international mm-hmm. euh, jox nañu ay bourse ñu dem jàngi véritablement ci yenn séminaire yu bëri au niveau international mm-hmm. bu weesoo loolu également Euh, mën nañu wax ne euh, ku mel ni conseil national de lutte contre le sida Senelec jàppale na centre bi. Mhm. parce que am na ay programmes yoo xam ne financé woon nañu ko. ñu ci dox ci wàllu prison yi xale yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi ñi jëfandikoo drogue. Mhm. Euh, tey si tey nag partenaire bi nga xam ne moo ñu gën a jàppale. Mhm. bu weesoo bu weesoo ministère intérieure bi nga xam ne centre bi quand Euh, jamono yi passé defaraat nañ ko. Mhm. parce que. dañ ko doon rénover. dañ te te ministère intérieur moo ko rénover. Mhm. ministère moo ko rénover ak ministère la santé aussi. ministère de la santé aussi vraiment ci benn programme bu ñuy wax renforcement du système de santé. Euh, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo rénové centre bi mën nañu wax ne ñaari ministère yooyu daal. Euh, waaw jàppale nañu parce que centre bi tey bu demee ba nekk ci benn état. Euh, boo xam ne c'est acceptable c'est grâce à au ministère de l'intérieur euh, notamment le comité interministériel contre la drogue et de la santé mm-hmm. mais partenaire bi nga xam ne moo ñu gën a jàppale tey ANCS la tudd alliance nationale des communautés pour la santé mm-hmm. euh, ci ci profito di féliciter di remercier la directrice Maguette Mbodj mm-hmm. parce que depuis 2013 depuis 2013 ak léegi mu ngi bëgg a yàgg ñoom ñu ngi liggéey ak ñun ci programme de prévention du VIH auprès des consommateurs de drogue mm. ci programme fonds mondial bi nga xam ne ñu ngi jàppale Sénégal ci wàllu xeex sida donc euh, chaque année depuis 2013 chaque année vraiment dinañuy jox ay subventions yoo xam ne dinañu permettre non seulement ñu def activité yi jàppale ñooñu nga xam ne ñuy consommer drogue pour que ñu bañ a am feebaru doomu jàngoro sida mais di permettre santé bi aussi muy muy fay ñenn ñi ñi nga xam ne ay salariés lañu bariwuñu. Mm-hmm. quatre personnes lañu euh, ñi ci des ñi ci gën a bari ay bénévoles lañ. Euh, yi nga xam ne recettes yi centre bi def parce que centre bi day def ay recettes ndax léeg dañu organiser fa ay réception léeg dañu organiser conférence léeg dañu organiser ay séminaire yoo xam ne dañuy fay location yeeg yooyu source waaw yooyu xëy na du bari trop. mais dana permettre ñu fay courant fay ndox fay ñi nga xam ne ñooy le personnel d'appui bi fa nekk. Mm. ak yenn bénévoles yi nga xam ne dañ leen di mobiliser aussi. Mm-hmm. donc globalement noonu la ñuy fonctionner. Mm-hmm. Euh, peut-être profiter lancer appel rek. pour que état bi aussi delloo si sa subvention parce que seetlu nañ ne. bëgg xam ba xam euh, subvention yi fu ngeen ci toll au niveau étatique. bon comme li mu wax daan nañu ko jox bi fi hmm. président bi Diouf nekkee daan nañu ko jot bi fi président Abdoulaye Wade nekkee jot nañ ko pendant quelques années mais après depuis lors mujjatuñ ko jot hmm. euh, depuis mën naa wax ne 2009 bu ma juumul 2009 wala 2008 lañ gëj a jot subvention état hmm. xam mu ngi bëgg yàgg quand même voilà subvention état Euh, li ñu jot ci diggante bi mooy jàppale yi nga xam ne ministère bi def na ko ci tabaxaat centre bi. Mm-hmm. mais subvention état yi moom dagg na depuis 2008 2009. Mm-hmm. Euh, bon ñun nag def nañ sax ay démarches ah jéem nañ xool vraiment rencontrer le président jéem a expliquer euh, mais ba léegi vraiment amuñ ci amuñ ci satisfaction. Mm-hmm. noonu laa ko mën waxee. donc peut-être di profiter ci sa micro rek di demander quand di lancer un, un appel à l'État mm-hmm. pour que ñu delloosi subvention bi nga xam ne doon nañu ko defal sans Jacques Chirac mm-hmm. parce que ñun jàpp nañ ne subvention lu am solo la parce que ñu permettre liggéey bi ñu def ñu gën ko ñu gën ko ñu gën ko ñoŋal parce que jàppale ñi nga xam ne dañuy consommer aussi jàpp nañ ne c'est c'est important en termes de de de santé et de sécurité même. Mm-hmm. nest pas euh, donc euh, voilà un peu. Euh, jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy rencontrer sur le plan du fonctionnement. Mm-hmm. Euh, mënuñu wax euh, jafe-jafe yi te ñu tudd jafe-jafe yi ngeen di faratal di rencontrer certainement à l'intérieur du pays mm-hmm. et parce que centre Jacques Chirac c'est vrai que Dakar la nekk mais certainement seen base yi élargir ngeen ko au niveau donc de l'intérieur te ji hormis li fi lim yëpp comme jafe-jafe boo demee ci gox-goxaan yi lan ngeen fa gën a relever comme comme difficulté. mais gis nga boo génnee Dakar dem ci yeneen dëkk yi vraiment situation yu doy waar nga fay fekk. Mm-hmm. parce que comme ni ma ko waxee sànq drogue bi fépp lañ koy consommer. et ñi koy consommer ci yenn dëkk yi yenn anam ci ci anam yoo xam ne amuñ kenn ku leen jàppale dañuy nekk ci ay jafe-jafe yu doy waar parce que dakaar fii. Eh, am na Sam Jacques Chirac hôpital baa ngi fii waa CPIAT a fii ñeneen ak ñeneen ñu fii programme yaa ngi fii eh, mais boo demee ci yenn dëkk yi nga xam ne xaw nañu sori Dakar eh, ay jafe-jafe dëgg nga fay rencontrer. Mm-hmm. man fan yi passé rek ànd naa waa ministère la santé ñu dem dans la région du nord là. Bory Saint-Louis Matam Richard tool dëkk yi mel noonu. Mm. vraiment situation yi doy waar nga fay fekk. Euh, ñun nag euh, jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko bo mooy mooy koppar yi ñu am moo doyul mooy ñu am moo doyul. suñ fonds yi moo doyul parce que centre bi de au début euh, biñ koy doog a créé 1995 16 bu 1998. Euh, région bu nekk fii ci Sénégal dem nañ fa def fa activité former fa ay acteurs communautaires installé fa li ñuy wax cellule régionale. Mhm. Euh, malheureusement dans toutes les régions il y des cellules régionales du centre Jacques Chirac. Mhm. dans toutes les régions boo xam ne lu mu bon bon euh, fanweeri nit ña ngi fa parce que fanweeri nit dañ daan former bu ñu paree formation yi installé leen officiellement. lu ci ëpp en présence du préfet ou du gouverneur. Mhm. donc loolu effectivement dañ ko defoon parce que jàpp nañ ne xeex drogue fépp la war a am ci Sénégal. Mhm. fépp foo dem war nañ installer ay kuréel yoo xam ne dañ jàppale ñi nga xam ne ñooy jëfandikoo drogue war nañ installer ay kuréel yoo xam ne dañ def prévention pour que effectivement population ñu sensibiliser ba mbiru drogue duñ ci dugg. Mhm. ça on l'a fait. malheureusement liggéey boobu mënuñ ko continuer parce que amatuñu woon moyen. pour waaw pour jàppale ñooñu parce que former nit ñi aussi. baax na installer cellule bi baax na mais di leen yónnee loo xam ne dana leen permettre ñu def ay ay di leen gunge ñuy def ay activité mm-hmm. doon na am solo malheureusement au début amoon nañ quelques petits moyens doon leen gunge mais mujj moyens yooyu dakk na mm-hmm. et cellules yooyu foofu lañ jógee daanaka dee fonctionner tuñ mm-hmm. et tey si tey loolu mooy jafe-jafe bi aussi euh, euh, les comités régionaux de lutte contre la drogue état Sénégal par le ministère de l'intérieur région bu nekk installé woon na ko fa. Mhm. fab gouverneur teg ci bopp ce comité régional bi. Mhm. mais lu ñu gis tey mooy que comité régionaux yi daanaka existé wul parce que les moyens d' accompagnement qu'il faut mais état bi mettre ko en place. Mhm. Euh, pour wax rek ne ñun jàngat bi ñu am mooy que xeex wàllu drogue mooy yi mu laaj wax dëgg yàlla état Sénégal mettre ko en place. Euh, c' est vrai ñu ngi def ay efforts yu bari. ci wàllu répression bi maanaam fexe ba kuy dugal drogue ci réew mi ñu jàpp la. contrôle bi contrôle loolu ñu ngi def ay yu bëree bëri. Mhm. fi ñu deful effort moom mooy ci wàllu wi ñu nekk. Mhm. mooy wàllu prévention ak wàllu faj ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo drogue. Mhm. te loolu aussi lu am solo la. parce que effectivement xeex wàllu drogue du rek répression du rek wàllu contrôle. dëgg la war na ñu fexe ba ñu nga xam ne ñu ngi koy dugal ci réew mi ñu fexe ba di leen nasaxal di leen jàpp di leen tëj ci kaso yi loolu am na solo. Mm-hmm. fexe ba ku koy jaay ñu jàpp la loolu je pense que ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ay résultats yi bés bu nekk ñu gis ko ma ciy profito di féliciter waa OCRTIS bi nga xam ne fan yi changé nañ seen directeur général di féliciter directeur bi nga xam ne ma nga fa jógee le commissaire mm-hmm. euh, lu ko jiitu. woon euh, c'est le comité a Cissé moo fa nekkoon ñun ñëpp bañ fa jaaree dafa liggéey bu am solo. mais li nga xam ne moo ëpp solo tey jàpp nañ ne mooy fexe ba nit ñi duñ ko jëfandikoo développer activité de prévention. gën a wax mbiru drogue ci biir école yi. gën ko wax ci biir quartier yi gën ci sensibiliser population yi amener l'opinion publique véritablement à prendre en charge cette question là. Mm-hmm. loolu gis nañ ne defuñ ko bu baax a baax. def ay moyens yu doy aussi pour que ñi nga xam ne dañ ci sax feebar ci faj mi laaj ci ñoom ñu def ko que ñu nekk Dakar que ñu nekk Saint-Louis. Mm-hmm. fu nekk nit am accès au traitement. Mm-hmm. donc yooyu vraiment jàpp nañ ne. lu a am lu am solo la loo xam ne état bi war na ci taxaw. Mm-hmm. Euh, mënuñu terminer suñu émission bi te doo ñu defaral benn petite évaluation du travail des années 1995 2021 certainement lu bëri jot ngeen ko def ci seen cursus boo ñu mënoon defal rek benn benn benn genre petite évaluation euh, ci ci tënk lan nga ñu mën a wax ci liggéey bi centre Jacques Chirac di def. bon euh, xam nga natt sa bopp yombul. Mm. mais daal liñ mën a jàpp mooy ñun jàpp nañ ne centre bi euh, amul moyens yi war a am mais jàpp nañ ne liggéey bi muy def liggéey bu am solo la. Mm-hmm. Euh, te bu ñu seetloo témoignage yi nga xam ne yenn partenaires yi def nañ ko ci ñun mu doon fii ci réew mi ak ci bitim réew dañuy jàpp ne liggéey bi lu ñu war a wéyal la parce que nit ñi jàpp nañ ne liggéey bu am solo la. Mm. Euh, et puis bu ñu seetloo ne léeg-léeg ñu dalal man léeg-léeg am ñoo xam ne dañuy ñëw euh, di ñu remercier ak yooyu di ñu wax ne ñun xëy na rek ma fàtte waaye man ay at jaaroon naa fi. Mm-hmm. Euh, dama doon jëfandikoo drop ba mu yóbbu ma ci benn niveau boo xam ne daanaka sama àdduna commencé woon na yaaxu. Mm-hmm. mais bi ma ñëwee fii vraiment taxaw ngeen ma taxaw moo tax tey maa ngi sant yàlla. di ñu ci remercier loolu bés bu nekk ñu dajeeg moom. un boum au cœur. oui oui ça fait ça fait un boum au cœur. Mm. Euh, et damay wax nit ñi ne leen euh, da ngeen baax rek mais loolu sax jaru ko. Mm-hmm. waaw parce que ñun xay na liggéey bi ñuy def li euh, liñ ci soxla rek mooy nit ki bu fi jógee moom boppam. véritablement dugg dund beneen dund burul ba mu daan dund. Mm-hmm. donc loolu dañuy dajeeg moom très souvent. nit ñu bari dañuy ñëw di def témoignage yu mel noonu. Mm-hmm. et l'état du Sénégal même euh, kooku aussi faw ñu wax ko euh, ñun ministère intérieur fi jaar yëpp véritablement félicité nañ ñu. Euh, mandargal nañ ko sax am nañ ñun ay diplôme de reconnaissance ay diplôme d'honneur yu mel noonu yàgg nañ ñu ko jox mm-hmm. ay diplôme d'encouragement mm-hmm. yooyu véritalement yu ñu am la et puis fu ñu waxee ne dañuy waxtaanee mbiru drogue ci Sénégal wala ci Afrique euh, te soxla nañ organisation communautaire bu fa nekk état du Sénégal daf ñuy délégué. Mhm. délégué nañu partout. Mhm. fii en Afrique. Mhm. au Ghana au Nigéria jamono yi di ñëw sax ñu ngi waaj a dem Abuja. Euh, euh, parce que ministère de la santé. j'en profite pour remercier leen ñoom aussi. Euh, euh, euh, le docteur Doucouré le professeur Aïda Silla délégué nañ ñu ñu représenté ministère de la santé aussi ci ay waxtaan yoo xam ne dañ ko sumboon au plan africain au niveau de la CEDEAO sur les questions de la drogue. Mm-hmm. donc yooyu dafa doon yoo xam ne. Euh, ci tënk dañuy jàpp ne liggéey bi ñuy def am na solo moo tax ñu am ci reconnaissance moo mm-hmm. tax nit ñi di ñu féliciter. Mm-hmm. donc euh, loolu véritablement lu ñu tënk la mais li nga xam ne jàpp nañ ko aussi mooy que euh, domaine bii ñu nekk domaine bu ñu war a fulaal la aussi. Mm-hmm. malheureusement seetlu nañ ne parce que ñun dañ jàpp ne dëgg la soutien bi moral am na solo. mais fexe ba nga xam ne moyens yi aussi dina permettre que centre bi liggéey mu def ko ci anam yi gën aussi c'est important c'est pourquoi sànq may wax que état yi euh, on reconnaît tout ce que l'état a fait pour nous loolu duñ ko nier euh, mais il faudrait que état bi aussi gën a yokk taxawaayam pour jàppale centre Jacques Chirac pour jàppale yenn organisation yi fi nekk parce que du centre Jacques Chirac kese bëri na ay association xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu xeex drogue waa Jamra yi ñu ngi fii ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne véritablement ràññee nañ seen taxawaay ci wàllu xeex drogue bi mais amuñ soutien bi nga xam ne war nañ ko am mm. je pense que dafay am solo nag état bi gën a dooleel organisation yi gën a jàppale ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci wàllu prévention gën def prévention en milieu scolaire ci wàllu école yi loolu aussi lu ñu réclamer la il faut que mbiru drogue tey ñu koy waxtaan di ko jàngal xale yi ci biir école yi parce que ça commence à poser un problème là-bas véritablement demander l'État à ce que mu gën a renforcer les moyens euh, euh pour soutenir la prévention mais soutenir l'accès au traitement mhm. euh, pour les consommateurs de drogue maanaam fexe ba nga xam ne ñi nga am dañ ay jafe-jafe ci wàllu yor gu yaram te nga xam ne drogue moo ko causé fu ñu mënti toll ci Sénégal ñu mën a jot ci paj mi nga xam ne moo war Euh, waxtaan wi am na solo waaye nag mu mel ni lu ñu cëraloon ci waxtu wi daanaka yegg nañ ca Cheikh Diop. merci jërëjëf euh, jërëjëf maa ngi am euh, encore une fois mbégte. Mm. di participer ci émission bi. Euh, di la remercier aussi. Mm-hmm. parce que questions yi euh, c' est des questions assez professionnelles. Mm, merci c' est des questions assez assez pertinentes. donc euh, permettre nañu xëy na ñu andi ay leeral. Mm-hmm. ci ci anam yi nga xam ne moom lañu ñu laaj. Euh, di wax ne pour ñun euh, lii aussi dañ koy nawe suñu réew. Mm-hmm. waaw gis nañ ne médias yi. Euh, aussi yenn problème yi nga xam ne ay problèmes sociaux la. Mm-hmm. dañ koy jël en charge loolu c'est important. Mm-hmm. parce que lii ngeen di def ñun mënuñu ko def xëy na bu ngeen fi nekk nekkuloon euh, lu bari dinañ ko def mais nit ñi duñ ko yëg. Mm-hmm. Euh, te li ñuy def nag askan wi yëg ko dafa am solo. Sans Jacques Chirac tey bu ko ñu bari déggee xam ko médias yi ñoo tax. c'est les radios c'est les télé surtout. ñoo ñëw def ay reportage di ñu invité ñuy expliquer loolu moo tax nit ñi xam centre bi mooy lan. Mm-hmm. donc pour cela ñu ngi leen di féliciter bu baax baax di leen remercier di leen wax ne ñun vraiment ay partenaires professionnels ay partenaires professionnels lañ jàppee suñu bopp ak yéen saa yoon ñu soxlaa rek. Mm-hmm. Euh, bu yàlla dogalee ñu nekk fii. Mm-hmm. danañu def suñu kéemtulaay kàttan ñëw fekk si leen. donc véritablement di la remercier bu baax di remercier sa collègue yi nekk ci rajo bi yëpp. ci dalal bi ngeen ñu dalal. encore une fois merci. Mm-hmm. Euh, euh, merci beaucoup à vous également Cheikh euh, Cheikh Diop bon mu mel ni au cours de l'émission certainement yéen ñi di déglu bàyyi ngeen ci xel il a fait un cri de cœur particulièrement ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy lay lay wéy ñooy wéyjur yi maanaam parents yi pour ñu gën a impliqué wu ci seen éducation wu doom certainement képp ku jël ciné ba rek c'est pas parce que danga nekk dans la débauche moo tax mais bu ñu leen xasee ba yóbbu ci centre Jacques Chirac bu ñu génnee wéyjur nag ak dal ba mën a téyewaat seen doom bu baax a baax ne serait-ce que rek euh, pour mu amaat benn insertion sociale bu xamante ni dina mën a demal boppam euh, merci beaucoup a vous également Cheikh Diop ma fàttali ni yéen a ngi doon teewlu seen émission bi di SOS santé SOS santé nag amoon mbégte ak bànneex doon dalal ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Diop euh, Cheikh Diop nekk coordonnateur du centre de sensibilisation et d'information sur les drogues ñu gën ko xam ci centre Jacques Chirac SOS santé Fatou nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité